jaajëf kontaan nañu bu baax a baax a baax Viviane par force Euh, fi ñu toll nii mën nañu commencé jël invité yi xam naa ne bu ñu paree rek dañuy dem ak euh, Mamadou Ndiaye euh, ci actualité sportive yi mais dañuy dem ci Jiba dañuy dem xooli clip boobu bu ñu jëlee clip Jiba rek bu ñu ñëwaat ci plateau bi dañu fi fekk invité bi mu toog Zazo Family ah mu ñëw toog bu ko defee ñu waxtaan ak moom mais Pape Maxet Diop Piboy am na lu mu def lu am solo biir Tëngéej mm, donc maye na fa ay projecteur ci estade bi 32 projecteurs yoo xam ni benn bu nekk 1000 la mu nekk loo xam lu am solo la Eh, waaw mais Maxet moom. Oh. loolu laa demoon li muy def tënkee dafa bari. office de la euh, dama bëgg ay doomi réew yu mel ni comme comme li Pan def. comme li Sadio di def. Mm-hmm. comme li keneen ak keneen di def moom. puis booy mu koy def tënkee mu nekk lu am solo waaw waaw gis nga seen terrain bi. Ah. gis naa fa ay glacier. ay glacier. bari na ci moom premier bokk na ci rare jour yi bind livre. Mm-hmm. xam nga dafa bind mhm. boo xamante ni wax parcours am retracé jaar-jaaram mu ngi toog Dubaay vraiment chapeau doomu mu euh, mu def mu ñëw jël mhm. yoo xam ne 1000 watt may ko ci stade Ngalandou euh, Diouf oh, man loolu laa man li laa wax ni fierté action yi moom boo réussir yow fexeel sa fief lépp réussir exemple yu yu yu am solo la xam na ñi ngi wax Sadio ñi ngi wax institut bari na ci ay ñeneen ñu nga xamante ne ñi ngi gagné ci sport bi lu kenn du yëg waaw waaw pare di ko delloo seen dëkk surtout loolu moom day wane ni carrément lépp lu mu am Rufisque la ko bëgg dama koy gis dama koy suivre bu baax a baax bu ci nekk jour bu ci nekk wala sportif bu ci nekk wala sénégalais bu ci nekk ci domaine bi bi ngay bi ngay évoluer boo ci réussir. na ko ñeneen nekk ci référence sa waa sa waa dëkk nañ ko mhm. ngay def am na solo. nga xam kii fekkee. Eh? ñu ñu dem ci kër bu nekk mu wut lu mu fa jox. non non mais li nga mën a ba. ba nga oyofal leen yu yoo xam dafa métti ci ñoom. nga oyofal leen ko wolof dafa ne c'est très important may may jën nga jàngal ma napp moo gën. c'est vrai na ci ñi nga xamante ni yaa ngi ñu ngi leen won yoon bi. moom au-delà de li muy def noonu am na fa je pense école de football ou centre de formation boo xamante ni mi ngi ci ba pare accompagné bu baax boo xam ni xale yi loolu loolu moom vraiment am na solo am na solo am na solo loolu am na solo comme da nga war dem seeti ko dégg caméra yi waaw waaw waaw mën a waxtaane moom ñu gën a xam moom mooy kan uh-huh. c'est très important nañu dem xool euh, clip yi ba euh, te ñëwaat léegi ci plateau bi day càng day càng dama am ay problème ay jus ay problème ay double V yooyu de non Zazo Family ah invité bi Zazo Family ñu dem xooli tur bi Zazo Family euh, te ñëwaat léegi euh, ci euh, plateau bi fekk suñu invité ay télé nañ jël ko Tu sais, tu sais, les soirées comme ça, vous me connaissez. Je trouve toujours des astuces. Tu sais, la chanson Hello nous fait penser à quelque chose d'autre. Il y a un très grand chanteur que je respecte beaucoup qui s'appelle Lionel Richie. Il a écrit une chanson d'amour extraordinaire. On va essayer de faire la jonction. Vous êtes prêts? Adieu. Line Russie par Youssou Ndour hello it is me you looking wax ma nu may duggee sa xol dama xam ni man ngay wër dama gis mbëggeel ci yow abadan daay man dama xam ni man ngay wër dama gis mbëggeel ci yow abadan dayman abadan dayman donc notre ami Sazo est là ñëw na pour ñu waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom la ñu indil muy son bu bees tàq boo xam ni ay coono la mu indil ñu ko ñu waxtaan mu ñëw toog ci plateau bi ñu war a waxtaan moom mu ñuy laaj ana femme yi lan moo tax femme yi ñëw ñu tey ma ne ko ndax da nga soxla woon femme yi est-ce que doo est-ce que doo xaar ba femme yi ñëw nga ñëw non non non parce que la dernière fois dama fekkoon femme yi man Sazo loo may wax na nekk jàmm loolu moo tax man man ak téléspectateur am lu ñun ñu sama ngeen am yi damay wax yëpp ah. bu dee nag femme yi da nga yaakaar ni am na ci femme yi lu libre yaa ngi juum femme yëpp a occupé bisu njaay mu ngi ci buum di sëy euh, moom doom mat na la yaay bu dee waaw waaw waaw pour leeral la rek après ñu soog a dugg ci waxtaan bi ah, bu ngeen waxtaan xamal ni yaay waxtaan ak sa yaay waaw waaw non mooy dama bëgg pour mu leer la rek waaw waaw waaw dama bëgg mu leer am na ci ay booy yoo xam dama bëgg mag waaw damay bëgg mu leer la rek pour nga xam fi ngay taxawee xam te concentré wu ci musique bi euh, gis nga Zazo concentré wu ci musique ak sport ñoo yem dafa fiir am na ñoo koy booleel bokk ci Zazo wala boo paree moom tamit meer bi boo demee maa ngi koy yàqal de boo demee <laughs> ay wóoruma sax sama wóor nekk ci boo demee meer bi ma a bëgg booy bopp ay bàyyi la nga waxtaan ak téléspectateurs yi ñu lay kontaanee bu baax bro. vraiment fii sa kër la. ma man mi. ah kon man sama xel mi neex na ma yaakaar sax temps yi ma kiiwee la man dañ may wàññi rek. ndax ma ah, toogal kan la maa ngi nuyu ñëpp. waaw mhm. ah, ma accueillir foofu tamit xam nga ñëw ci benn gox doon fa gan aussi. Mm. ñu tijji benn ASC jox la fa ndomal tànk aussi loolu du yomb tu vois. Mm. loolu tamit euh, dama koy rafetlu. fan la kuunul de. kuunul de. Mm-hmm, mm-hmm. di euh, bëggee waa caajaay bu baax tamit ndax fa laa jógee foofu la base bi aussi di leen nuyu cat ba cat di nuyu sama copain bu waroon a àndal tamit te bokk si kilif bi maa ngi faa maa ngi koy siyaar bu baax te dafa am ay quelques occupations. tamit ñëw waaw di rafetlu teewaay bi quoi. ay coono la tey euh, mu nekk son boo xam ne moom nga ñu indi ay coono la lan mooy coono euh, loo dund la luñ la wax la lan moo tax nga ni ay coono la amour la wala c'est la vie wala euh, c'est lan mooy ay coono. c'est juste que xam nga musique moom recherche la te son bi boo dégloo commencement bi di nga dégg son yu Youssou Ndour bi daw si suuf c'est juste que son yu Youssou Ndour boobu dañu remixé rek gars yi aussi di wax si positivement positivement positivement ma ne pourquoi euh, gars yi duñu wax si beneen parti bi aussi. beneen parti bi. voilà loolu dund la yow. xam nga tey da nga naan euh, am na ñoo xam ne dañ naan la lii amul kenn koo xam dafa bëgg kii bëgg bu sincère wala bu naturel ñooñu ñu koy wax ñëpp parce que lu ñu dund la yow loolu dund la loolu moo tax nga préféré way ci beneen sens bi. waaw bàyyi. non loolu ay détails la ah. doo ci dugg. da ngeen génn temps bu yàgg nga amoon ay projet ci moom mu jékki-jékki dem sëy keneen wala mu jékki-jékki envoyé le message ne la nañ bàyyante lan nga ci dund ba tax nga am lu métti nii ba way ko. non dund naa si lu bëri vraiment dund naa lu métti lu métti ba ba tey nga toll nii nga toll nii. lu <laughs> <laughs> man sama yaram yi ñoo xaw a baadoo la rek. mbaa boo sukkandiku lay gën a. damay jël poids <laughs> mooy loolu. tey euh, mu nekk benn wàll woo xam ne moom nga ci dund moom nga préféré nga. woy ko voilà moom laa préféré génne te musique yëg-yëg la en fait nit ki loo sentir wala loo jàpp ne lii boo ko defee dina def benn effet aussi moom lay def tu vois nit mënut a bind wala nga def loo xam ne yóbboo ko. bu dee mu ngi seetaan moom mi la inspiré ba tax nga bind ci fekkee mu ngi lay seetaan est-ce que envoyé na la SMS après wala après mu wax wax yoo xam dafa ñëwaat ci yow nga dégg ne moom mu ngi xam ne yow moom ngay waxal indirectement. Hmm. wala loolu ay waxi sew la ay waxi sew la. loolu bi mooy sa single 2 3 4. bi mooy bi mooy sunu cinquième clip. puisque dañoo nekkoon si benn projet projet bi nag ba léegi pare na donte son yi pare na sax mais. organisation bi moo pareegul en fait. Mm-hmm. ñoo nekk si projet projet bi réaction allégorique bi. album la EP la wala. Ah, e euh, mixtape mixtape mixtape bu neuf son quoi. waaw te xam naa incha allah dañoo bëggoon a tourner benn vidéo samedi samedi prochain ma ci def appel nag ñëpp. koo xam ne bëgg nga participer si vidéo bi aussi maa la si woo parce que caajaay leen dëkk aussi te caajaay leen ñuy représenté fépp ñu dem tu vois. te tamit su ma soñoon tamit waa Thiadiaye da koy participer. sama sama sama vidéo aussi. Mhm. voilà képp ku si bëgg a participer aussi mën nga jël sama numéro 77 682 soo ma defee signe rek après incha allah dina ko xool. fan la ñu enregistré sox bi clip bi kan moo ko def ak bu ñu bëggee seetaan clip bi ban chaîne la ñu dem pour mën koo fa xool. son bi maa ngi nuyu sama gars yi poli poli moo def bi moo def aussi son bi mu ngi rockte ñaar dañoo am problème waaw dañuy siyaar kenn ki après nga dem siyaar ki ci des dañoo kiiwatuñu ak àndaale tamit non Serifo ak Diop ñàkk xanaa gisul Serifo de xanaa gisul Serifo soo bi génn ni Diop Sabel rek la ci wax lépp mais loolu mënuma ko wax ci ginnaaw damay bàyyi ba mu toog plateau ma ne moom ñu mën ci waxtaan mais ba tey plateau beneen plateau boo siyaaree kenn ki utal ko def ci espace bi soo ko siyaar kenn ki mais bu leen taxal non ñoom ñaar bàyyi ma takkale ay di siyaare Fakolaay aussi di siyaare Poli Poli moom dama koy siyaare ndax sama gars la tu vois moom mooy defar picc yi mooy defar soin te day jàpp bu baax a baax a baax si dama leen di siyaar bu baax te tamit damay bëggee tamit xam nga ñi nga xam ne. ñoo jàpp si suñu bokkatu day def yëpp moom suñu kilib yi. Hmm. suñu kilib yi. mais à l'aise jàpp leen di siyaar bu baax aussi ku mel ni Moussa moom mooy def make up yeeg affaire yooyu di siyaara ñaari ndey yi xam ne tamit ñoo participé si si vidéo yi aussi. bu ñu bëggee seetaan euh, fan lañu ñu dem. da ngay dem da ngay tapé Zazo famille officielle. sa chaîne YouTube. waaw incha allah du seetaan donc ñu ngi lay kontaanee bu baax. en en tout cas yeneen projet yi ak yeneen événement yi war a am yëpp ñu ngi lay xaar ubbil la suñu ay buntu yëpp boo ñëwee rek ñu waxtaanee ko incha allah. ok incha allah. amoon ñoo war a sant wala ñoo war a gërëm. seen waa kër yooyu sa affaire bi. ki nga am na kenn koo amaat ko sant wala. ay ca saa merci beaucoup ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax nañu dem euh, xooli euh, clip boo boo ma may rek am na beneen invité xaw ma ndax egsi na wala egsi wul mais nañu dem xooli clip boo ma may Aïda Samb wala euh, ki nga xam ni mooy. Jiba hmm, tay moom dama ko wax rek mu génn wala ki nga xam ne moom mooy Jiba ñu dem xooli ko te ñëwaat léegi ci plateau bi laataa ñu dem ci actualité sportive bi léegi-léegi. famille yaay préféré yow rek yow yow rek lu waay amul sa waay dafa am ay yow yàq boo xam ni euh, bi mu génnee suscité na ay coow yu bare bare bari mais euh, danay wan ne rek mooy euh, clip la bu dox clip la bu ñu organisé bu baax parce que loo génn rek réew mi di ko waxtaanee plateau yi grand place yi ñëpp di waxtaan ni man bu ma invité woon ñiy kaas ci clip bi invité Aïda dina ma neex trop parce que li mu way ci clip bi moom la war wane ci clip bi mm-hmm. femme bu sonn ci këram ba mujj nekk rek fa référent ñu takkal ko ay or takkal ko yëpp mm-hmm. donc femme yi nee nañ na femme éviter di wax femme ci xelam ni ko dafa war a sonn waaw waaw waaw waaw ni loolu waratul am fi àdduna bi toll waratul am léegi nag dama bëgg ñoom ñu wax ma ndax ñi maam yi daan sëyee baaxul woon wala sëyu léegi bi il faut ñu toog teg ci loolu ñu waxtaan ci parce que dama gis benn fii bi ci def benn vidéo tey su ma invité woon benn Aïda Samb dinaa wax dinaa fexe ba fii bi def benn vidéo ma enquête ko ci laaj ko ndax moom nan la euh, bëgg femme sëyee Aïda Samb aussi tamit femme yi nañ ko lan moo tax bi mu xamee ni femme noonu la war a sëy moom euh, moo tax Aïda il xam-xam yooyu dina li loo ci dégg naan waaw parce que a ah, mais mais femme mais femme intellectuelle. waaw bi noonu ñuy sëyee. ak femme boo xam ne femme au foyer la. Mm-hmm. mënuñu bokk ni ñuy sëyee. Mm-hmm. femme au foyer mën na fomp mën na fobeere mën na même femme intellectuelle bu wàccee ci këram. am na femme yoo xam ne bu wàccee nga fekk leen seen kër bu ñu la waxee kii intellectuelle la wala lii la mënoo ko gëm. Mm-hmm. donc man xale yi ñu nekk ci internet ñu nekk ci ci ci internet bi di kaas. kaas naan jigéen warut a sëy loo ci dégg nara bañ a sëy la rek. takk leen dina maîtriser. nara bañ a sëy la rek. yow waroo soq waroo wal. waroo ruut waroo waroo raxas ndap waroo waas jën. te pour ma sax loolu loolu àdduna la àdduna a ngaa jariñu faa nga solo dañ naan la femme moderne parce que léegi wal am na machine a koy def. soq beeg eh, yooyu machine a koy def. Eh, léegi dagg sax ay machine a koy def léegi. mais kon mu ngi jaay kon ñun suñu ñun euh, boo yorul <laughs> pour nga am soxna dina. dina métti benn mag dafa ne ma woon ñeewuma leen yéen seen génération. ah de. ñu soxla wuñu ñee de. parce que mën naa ko wax Golbert Diagne la woon papa yi. ndeysaan yal na yàlla nii ba ne yéen ñu bokk ak a bokk euh, ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi soog a ñëw nga fekk ñu am invité chaque fois problème bi may am ak yow mooy invité yi ni jaay day toog ne yow Toch da ngay jaay. yow da ngay jaay yow da nga am place un bon animateur égale à un bon commercial. qui vend yow ñun ñoo am slogan wu le client est roi. l' invité est bu ñu amee invité bu génnee. Mm-hmm. ne ma Aba vraiment war nga wax ak Toch. chaque fois ma woo la Toch avant émission di commencer. après émission boo waaj a ñëw déjà pour commencer da ngay nekk en retard chaque émission. kon yow sama woo yi ma lay woo amul benn njëriñ. côté yi mettre leen à chaque émission yaa ngi fekk kii def tatouage xamoo lu lu mu ci daj. xamoo kii ndax am na borom kër yow xamoo kii ndax kan mooy papaam ndax procureur la ndax yow li jënti woon loolu yëpp tos doo enquête mm-hmm. toujours dañuy jëm ci ay erreur rek rek mais abaa comme yaa ko wax ni le client est roi bu ma ñëwee fekk fi invité bii nga xamante ne man moom rek laa doon xaar pour mu dugg pour moom ñëw toog. kii yaa ngi doon ah, parce que kii moom a a yow. kii moom man ok mais boo ñëwee gis ko mu def tatouage ah mu xaw a naq nii da nga koy nettoyer tout simplement <laughs> parce que lii dara nekk. fii nettoyer à l'aise c'est data. da ngay mel ni ñi xamuñu. mais ci ku ñaari gel xamante ba am problème yow yaa indiwaat sa bopp beneen problème bi te yow teg ko lan laa wax na yaa jamais deux cent trois <laughs> ñaari gel am problème faaw mm, ñëpp di leen euh, ndokkeel di leen wax ni wax dëgg fa yàlla nag gars yi jugaat bu baax a baax parce que bu baax a baax euh, waaw bu baax cag-cag bi gars yi ñibbisi nañ gars yi ñibbisi nañ di gërëm bu nga xam moo ma fekk ci biir taxi bi lokkati ma ma ci cag-cag na ma émission ba commencé nag kaa ñu dem maa ngi koy nuyu bu baax baax Abdou euh, ak ak fàtte naa tur bi. ak sa wala euh, càq bi waaw maa ngi koy siyaar bu baax a baax di leen wax dal leen jàmm bu baax seen émission euh, Weekend Star ñu ñëw ak yéen léegi léegi ci actualité yi fi jot. loolu dalal nit ñi wax loolu lan ngay dalal nit ñi wax. yow dalal dalal leen ma jàmm ci émission bi. ñëpp dal nañ fi kenn ñëpp dal nañ. yow kay dañu kanam maa ngi ñëw dalal leen jàmm comme ni ñu koy defee rek à chaque fois. yaay mujj say yow say élément mooy mujj. au cas où nga wax fi loo xam sa yoon nekk ci dañ koy dagg loolu moom yaa ngi koy kaas internet yi maa ngi gis ñuy kaas naan waa su lu wax dëgg la ne nañ ko dañ ko jox cër bi moom ci plateau bi na jox sénégalais yi cër bi ñu moom mm-hmm. euh, ñoom tamit ci euh, fi nga xam ne fa lay toog ci plateau bi donc dañuy dem ci Zé euh, avant ñuy dem ci actualité sportive yi Zé noo def sa caméra bu yaa ngi ci jàmm affaire yi mbaa mu ngi dox dama dama dama teg clip bi mm-hmm. clip bu sànq bi doon daw ay décembre bi le temps may def connaissance ak yow ñu ngi waxtaan. Euh, nga ni ma bii mooy sa troisième clip su ko son. sa troisième son euh, kañ nga nekk ci aar bi nga ni ma mu ngi bëgg a yàgg. Mm. loolu yëpp xam naa dañ ci tontu ci kanam mais dama dugg ci euh, lan nga way nga ni ma fonk ma ma ne fonkoo ma may la da nga am problème ak waa ji nga ni ma bul dugg foofu sa vie privée bi mu ne bu ma dugg ci vie privée steak nee na man lay bu ma dugg ci vie privée mu ne ma avant dimbali ma ngir yàlla après naa la tegal amoo loo may tegal loo may tegal yéen nga tegal ma ko ci plateau bi nañu doon xool Fonkoma euh, euh, Bousse le temps ñu koy euh, jox mu nuyu téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan bi ñu dem xooli clip bi te ñëwaat léegi-léegi la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon bi ma reelee dëgg dëgg gërëm naa la fàttewuma la nëbbatuuma la ma la doon topp soo mënee defal ko bi lépp baax kii yow laa doon gis bi ma sonn yaa bi ma nee dëgg dëgg gërëm naa ay ma bàyyi la ak téléspectateurs yi bu ko defee nga nuyonte ak ñoom ñu dugg ci waxtaan bi. acca li nga indi mooy. fonko euh, ma kan ngay waxal. dafa bëri ñu fi nekk dafa fonko ma dafa bëri loo xamante ni moo ci nekk. Ah, mais quand bi nga toogee nga jël sa bic ci way bi am na loo xalaat. wala am na koo xalaat. ba mm-hmm. tax na nga bind way bi. Mm-hmm. lan moo la inspiré. ma dafay mel soo ko woowee téléphone yow doo ko jot. ok xam dara nag si émission yi ngay amee occasion exprimer li la naqar yëpp bul xoolal mais avec discrétion avec intelligence ki ngay waxal mën na bañ a xam ne sax yow moom ngay waxal mais waxal sa soxla waxal sa soxla. ok donc tey donc suñuy way euh, dañuy way lu fi am way lu fi créé wala lu ñu expliqué yow da ngaa way ci loo dund. lu ñu expliqué loolu la ñu créé way. xamante ni comme dund exemple nit ki moom su la soxlaa téléphone da jot yow soo ko soxlaa soo koy woo moom du la jël. foofu rek la kii problème communication la. waaw comme ça am na problème communication bu métti métti bu ko dal. yaa ngi dund lu métti. ñu ngi ñu jëlee sama large moo yàlla baax na sama baax man mu ngi dund. waaw mais ci <laughs> communication. ok ok mais dina la jël à partir de dooroon avant dina la jël. ok. ah dégg nga appel vidéo di ko wan tatouage. Euh, tos may ñëw daal bii mooy sa premier clip bi. bii nga soog a def clip. waaw euh, defoon naa ay fan nga jaar kan moo la inspiré ci ay way kan nga xool ba tax na nga ne yow mën nga nekk waykat da nga doon fooyee way dafa sa seen famille kenn kuy way lan moo la indi ci nga ñëwaat ci yow léegi euh, su ma ñëwaat ci yow dinañu waxtaanee nga wax ma euh, son bi kan fan nga ko enregistré nga wax ma euh, li nga xam mooy clip bi fu ñu ko defee et wax ni bu ñu bëggee seetaan clip bi fan la ñu dem pour mën ko fa seetaan nga waxaale li ne moom mooy projet yi li war a ñëw ak li nga xam ne moom moo ci topp lépp lépp genre yu mel ni seetu Sénégal laay ni bëgg di am nag ñoom kese ñu mën a yaatal mën a waxtaan dugg fu ñu neex parce que yow ki ma dérange nga dégg ko wala nga bañ ko dégg Modou Ndiaye actualité sportive bi tey lu mu wax <laughs> loolu mooy élément perturbateur bi quoi mais baax na ci invité yi de <laughs> sous-entendant yi lay génne. xam nga téléspect dafa mel ni ñu mel ne ñu bari ñu mel ne moom de Sénégal. dëgg la ay yu sew rek la ñuy génn yoo xamante ni yooyu rek la ñuy kii mais fi ngay nit day ñëw nga xool kanam gi xam ne am na lu mu bëgg génne mais il faut mu am ku ko appuyer ku ko neexal mettre ko à l'aise mu mën a génne li ko métti mais moom moom moom moom ak lu mën a xew am na problème ay relation ah, waaw waaw ak communication nee na problème <laughs> communication la am jaajëf Aba tey basket la ñuy waxtaane ah euh, afro basket bi ñu jëm ci jigéen ñi nga xamante ni ñu ko jàpp euh, ci weeru août 28 euh, juillet ba le 6 août fële ca Rwanda ca Kigali eh, bët ki démb nag ki nga xamante ne mooy coach Moustapha Gaye def génne na liste bi nga xamante ne fas yéene eh, yeggale lii di eh, préparation quatorze. dañu wàññi. waaw oh, wàññi nañu lu bari. Oh. dix neuf la ñu woon. wàññi cinq. actuellement 14 lañ dinañ wàññiwaat yeneen 2 balaa ñoo dem. Ah. oui 5 hmm? yi ñu wàññi. ñu ñu wàññi waaw kan la. waaw bari na ci ah ñi nga xamante ni ah. aussi dafa woon effectif bu bari. Hmm, ñu xam ñu gën a ñu gën a non ñu xam ñoom ñëpp xam nañ leen. Ah, ñun hmm, Yacine Diop mu ngi ci équipe bi ba tey. mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci eh, loolu noonu euh, lu baax loolu mu ngi ci. mu ngi ci équipe bi ba tey. si si si waaw waaw waaw ñun yàlla lay toog ak yoo xamante ni actuellement ñi ngi ci biir di continuer préparation bi donc euh, balaa ñoo dem dinañ wàññiwaat yeneen ñaar mais pour le moment ñii ñoo fas yéene gën a concentré wu waat ci liggéey bi euh, sélectionneur bi ñëw na ci mais keroog bi ñu wàññee ba pare def nañu continuer waat nañu seen liggéey waxtaan nañu kii di Aya Traoré rek. nga mm-hmm. xamante ni yàgg na ci loolu expérimenté. Mm-hmm. Euh, nekk champion d'Afrique moom tamit mu ñëwaat ci parcours mais surtout préparation ñu jëm ñu dégtale élément It's going good. Um, we have a lot of good young generation and good older generation veterans that's teaching us the ways. Um, the young generation is bringing the energy. Uh, we're having fun, and coach is pushing us, and um, we're, we're, we're vibing very well. Go in, be better than last year. Kii Yara la suma juum ci Ciara la dafa am effort ci moom parce que ah. euh, dañ ko doon naturalisé. Mhm. finalement président de la république def euh, génne na décret bi démb. Mhm. donc moom officiellement actuellement elle est sénégalaise. donc euh, mm. léegi a nag le souci mooy il faudra que ci wàññi. dama mm. dégg ñoom. ñi nga mm. xam ni dañu leen jox suñu ay nationalité. Mm-hmm. dañu nekk ñaar. te kenn rek moo man a dem loolu ban problème la loolu. oui si kenn ñoom xam nga règlement FIBA bi dafa ni euh, ci sélection yi kenn moo mu la ñuy jël koo xamante ni expatrié maanaam bi binational. Mhm. koo xamante ko kenn.